ki ci topp mooy jigéen joo xam ne ndaw la waaye moom amul taar buñ koy geesoo te it waajut kooku nag mën naa dem jàkka julli jullik farata bu kenn ci mbokkam wàññi ko itam mën na caa dem waaye nag taxul mu sañ a dem ca jullik korite ga mbaa tabaski ga mbaa jullik mbaaw ga sëñtu demit ci fa ñuy waxtaanee xam-xam mbaa fa ñuy sikkare mu des nag jigéen ji nga xamee ne ndaw la te am taar lool nga xam ne su génnee rek maanaam góor ñi am fitna ci moom kooku moom lañ koy tànnal mooy na far toog rek bañ a génn ci genn wet ñoom daal ci seeni jamono nii lañ ko daan teqalee bu dee nag sunu jamono yi moom dafa mel ni lii day naqaree sàmmoonteel la ca tane woon daal mooy jigéen ñi moom ndegam mënuñoo ñàkk génn ñuy farlu ci di sàmm seenu col yaram wi daj kapp ba mu des lañ ca sañ a feeñal muy kanam yaag tenq ya sàmmoonteeg orma sàmmoonteeg teggin loolu daal mel ne ne moo ca tane ni mu teqalee jigéen ñi ñeenti xaaj moom lay wax ci sarabinaa taxqiqul qawli fi hadihi al masala hindi an an nisaa arba xajuusunin qataxat xaajatu rijaali minha fa hadihi kar rajul fa taxruju lil masjidi wa lil fardi wa li majalisi al ilmi wa dikr wa taxruju lissaxraai fi l iidi wal istisqaai wa li janaasati ahlihaa wa aqaaribihaa wa li qadaai xawaa'ijihaa wa mutajaallatum lam tanqatic xaajatu rijaali minhaa biljumla fa haadihi taxruju lilmasjidi lilfaraa'idi wa majaalisi l-ilmi wa dikr wala tuksiru at-taradduda fi qadaa'i hawaa'ijihaa ay yukrahu lahaa daalik kamaa qaala fi riwaaya wa shaabbatun gayru faarihatin fi shabaabi wannajaaba taxruju lilmasjidi lisalaati lfard wa fi janaa'isi ahlihaa wa aqaaribihaa wala taxruju li iidin wala istisqaa'in wala li majaalisi dikrin aw ilmin wa shaabatun faarihatun fi shabaabi wannajaaba fa haadihi al ixtiyaaru lahaa an laa taxruja aslan wa faslu ma'muumin dagan na tàqale maamoom bi naxarin ci ak dex saxiirin gu ndaw aw tarixin wala aw yoon ilimaan jee jiite ak ki bëgg a ànd ak moom mu jiite ko seen diggante ak dex gu ndaw mën na faa dox wala aw yoon wala ab tool la ca am solo rek mooy su fekkee ne dex ga mbaa yoon wa mbaa tool ba du tee maamoom ma di seen ilimaan ba rek lu mu def mu xam ko roy ca moom dal nay doy ba tey sax bu ko gisut tey dégg kàddoom wala muy dégg kàddu kay jottali it dal nay baax ndax dana tudd léegi ne mënees naa roy ci kàddu kay jottali waxu moowu ma moomin ak féeti kaw ma moom wala bi satxin ak doonte ci terrasse la laa imaamin du caagéemu féeti kawuk ilimaan fa yukrahu moom def na ko sib illaa bi ko shibirin dare lu toll ne ab sebre aw daruratin wala ngir lor aw qasdi taalimin wala ngir na ma xamal dara ña muy jiite ni ki melaw julli ga ilimaan jiite ga muy jiite day xaw a nuru daraja moo tax di nangu fa muy jullee féete kaw fa maamoom di jullee maamoom moom te muy jullee mën naa féete kaw fa ilimaan di jullee te bu ca jubluwut ak rëy rek du wàññi dara waaye ilimaan moom duñu nangu fa muy jullee féete kaw fa maamoom nekk su ko defee te jubluwu ca genn rëy ñu sib ko rek yem ca lu muy nag fa ilimaan nekk di jiite moo féete kaw fa ñu muy jiite nekk waaye lu néew néew kat la ko gën a kawee niki boo nattee fa ilimaan ja taxaw natt fa nga xamee ne fa la maamum nekk fi ilimaan nekk mooy féete kaw waaye la muy féete kaw day tolloog benn chebre dong wala boog ilimaan fa muy jullee moo féete kaw waaye ngànt ko waral mbaa daa bëgg xamal ña muy jiite nañuy jullee te fam nekk féete kaw nag te lay gën a mën a xamlee melaw julli ga yooyu yëpp dara nekku ca wa batalat julli ga yàqu na in qasada ndem jublu na imaamun ilimaan aw ma'mumun wala maamoom bi ci ca féete ga kaw alkibra rëy ga julli dañu ko digle ngir bëgg a toroxlu ak wayaflu ci kanam boroom bi kon nag ilimaan wala maamoom koo ci xam ne fa ngay jullee daa féete kaw fa ka ca des di jullee te ak rëy maanaam gis sa bopp ak ku rëy rek moo tax fa ngay jullee féete kaw fa ka ca des di jullee julli ga dal na yàqu kon bu ñu nee ilimaan fa muy jullee mën naa féete kaw fa maamoom di jullee lu toll ne ab sebre lu toll ne ab sebre daa néew waaye bu ci ilimaan ci jubloo ak rëy rek ak gis boppam rek ak bëgg a wane nu mu féetee kaw ña muy jiite rek julli ga dal na yàqu lañu waxoon ne it dañuy jiite moom muy jullee ci kaw ilimaan di jullee ci suuf dara nekku ca ndax jiite ga moo nekk luy nuru daraja waaye ka ñuy jiite moom di jullee ci kaw rek taxul muy daraja du tee bu ca maamu mu jubloo ak rëy bañ a tolloog ilimaan ja fu muy jullee wane ne fi may jullee moo féete kaw fi sama ilimaan di jullee rek julli ga dal di yàqu kon mën ngaa takk ne fu ñu fi waxe ne fa ilimaan bay jullee mën naa féete kaw fa maamum nekk wala ñu ne fa maamum nekk mën naa féete kaw fa ilimaanum nekk te féete kaw daal loolu bu mu ci jublu ak rëy ak gis boppam bëgg wane ne moo féete kaw ka ca des bu ci jubloo loolu rek julli ko dal na yàqu wa mu sàmmiwoon dagan na wut aji jottuli di wax ci wolof aji nangu lañ gën a sopp mooy ilimaan ji yëkkati kàddoom ba ñu muy jiite ñëpp di ko dégg te it bu fekkee ne ilimaan ñu muy jiite bëriwuñ bu waxee rek ñoom ñëpp ñu dégg ko du jar ñuy wut kenn kuy jottali li ñuy wax kuy nangu bu fekkee nag am na ñu sori ñoo xam ne bëgg nañoo bokk ci julli ga te bu ñu nanguwut maanaam bu amul kuy jottali duñ ca mën a bokk kon dagan na maanaam mënees naa wut koo xam ne mooy jottali waqti daawul ak roy bi ci ca moom bu xasee am nag kuy jottali déggoo ilimaan waaye yaa ngi dégg kàddu kookee di jottali man nga roy ci kàddu kiy jottali maanaam kiy jottali bu waxee allahu akbar nga xam fañ toll bu waxee rabbana walakal hamdu nga xam fañ toll daldi def la tolloog loola mu mel ne moom moo lay jiite fekk na moom day jottali rek jiite wu la ilimaan ci dëgg mën ngaa roy ci dégg nga dégg kàddoom daal wa bi ru'yatin ak ci ak gis wa in bi daarin ak doonte ci kër la du ñu sart ne ilimaan ji lay jiite faw nga dégg kàddoom boo dee seen jëmmam rek nga xam ne lu mu def nga mën koo def rek dal nay baax mën ngaa nekk ci kër gi ilimaan nekk ci jàkka ja bu dee léegi sax nga xam ne rajo am na mën ngay dégg rajo jumaa ja di ca tolloole la ko yàq nag mooy ñu dem ba courant bi coupé dafa mel ne kon yow mu doon tolloolu ci rajo ba say boo far daggatee tàmbaliwaat wa shartul iqtidaa yi sartut roy ga ni yetuhoo mooy yéeneem aw walan ci njëlbeen wala si ma te itam war na te tàmbalee wax nag maa moom lay tax julleem wér gannaaw bu waxee ilimaan moom lay tax julleem wér mu ne faaw mu yéene roy ci kookee koy jiite doomi aadama sax bu ànd ak sagoom li muy def li ci ëpp dana koy yéene kon ki nga bëgg mu jiite la soo ñëwee rek taxaw ci ndeyjooram xaw a làng ak moom mbaa ngeen di ñaar mbaa lépp ñaar daal di rang fi gannaawam dal nga yéene roy ca moom loola doy na waaye baatub awalan bee lu ci am solo la day wane ne soo nekkoon ci sa julli bopp gannaaw ba nga séen keneen muy julli mbaa kilifa rek ñëw fi sa wet tàmbalee julli boo mën a wéy ci na nga tàmbalee woon sa julli bopp ga daal di wéy rek ànd ak moom faaw rek julli googee nga tàmbali da nga koy àggale ndax boo xasee tàmbali war a sàmmoonteeg orma ja da ngay gaaw rek àggale ko door a mën a ànd ak kii nga gis muy julli léegi waaye doo mën a wéy rek ca noona ànd ak moom ndax ci sa njëlbeen amoo woon yéene yi ànd ak moom ndax boobu gisoo ko woon mbaa yëgoo ko woon wala si ma day wane ne boo xasee am yéene ànd kii mu jiite la paw rek nga wéy ca loola doo saña jekki-jekki daldi beru yéeg sa bopp moom lay wax naa falaa yan taqilu du sañ a toxu mun faridun aji beru li jamaaxatin jëm ci mbooloo ka xag si ni ki ab safaanam soo xasee yéene ànd kii mu jiite la ci julli lu yàgg-yàgg da ngay ànd ak moom rek doo saña jekki-jekki yéeg sa bopp mel ne ku ko bàyyi teew nag nee nañu bu ilimaan ji yàggalee julleem lool ba jaduwut daañu la may nga daal di mën a beru àggale sa julli bopp moom lay wax naa wa mahallu manxil intiqaali al madkuri maalam yadurra al imaamu bil ma'mumiina fi tooli wa illaa jaaza al intiqaal kon nga beru tàmbali julli yow dong doo mën a daal di wéy ànd ak mbooloo ma lu may da ngay gaaw àggale sa julli googee doora mën a ànd ak mbooloo ma ba tey it booroom julli ci biir mbooloo maanaam ci gàttal rek am na ku lay jiite ba ngeen tàmbalee julli ni ñu ko waxee woon léegi doo sañ a jekki-jekki rek àggale sa julli bopp ni àndutuma ak moom lu may rek mu yàggal ko yàggal koo xam ne jaaduwut bi xilaafil imaam yi ci wuuteeg ilimaan walaw bi janaasatin ak donte ci tàdd la tàdd moo julleeg néew ilimaan moom duy sart ne faaw mu yéene jiite ga muy jiite mën naa bañ a bàyyi xelam ci jiite ga muy jiite te du wàññi dara day am sax ñu bari sëriñ si naa ilimaan bay jiite bu bàyyiwul xelam ci jiite ga du am ngëneelal mbooloo waaye wax ji gën a wóor mooy ñàkk gaa yéene jiite ga muy jiite du teemu am ngëneelal mbooloo daa am ñu wax ne nag bu dee julleeg néew moom na ilimaan ja yéene jiite ga muy jiite ñooñee mu àndal di jullee néew ba am ñu ne sart la ca mooy tax mu baax wax ji gën a wóor mooy mën naa bañ a dawal xelam ci ne maa ngi jiite ñii kat muy jullee néew bii ba am xelam demul ci jiite ga muy jiite ñuy jullee néew ba it dara nekku ca dëgg la sax doomi aadama bu àndeek sagoom niñ ko waxee woon léegi daanaka lu muy def dana ko di yéene waaye nag mën naa am itam mu jekki-jekki tàmbali jëf ja te xelam du dem ci loola illa jumxatan ndare jullit jumaa wa jamxan ak jullit boole li matarin ngir taw wa xawfan ak jullit ragal wa mustaxlafan ak ndare ilimaan bu ñu wutal dafa am yent julli yoo xam ne dañ cey sartu mbooloo yent julli yooyu nag moom ilimaan di koy jiite faaw mu yéene jiite ga maanaam ba muy door a tàmbali na delloo xelam ci mi ngi jiite julli googee julli jumaa mbooloo mënu caa ñàkk yu néew néew mat fukk ak ñaar yu bokkut ak ilimaan kon ilimaan na bàyyi xel ci jiite ga muy jiite julli jumaa ga ndax mbooloo mënu caa ñàkk bu njëlbal timis ak gee ndax taw asamaan si daañu ko leeral balaa yàgg na ilimaan ji yéene jiite ga ndax boole googu dañ cey sart mbooloo waxoon ne ne ilimaan ni raatib moom menn moom dong bu teewee itam taxaw na taxawaayu mbooloo kon moom mën naa boole waaye ku bokkut ak ilimaan ni raatib moom ni ki kenn kay nodd rek jot a teew ci jàkka ja ci waxtu timis mbooloo bi ñëwuñu ndax taw bi menn moom dong du mën a boole timis ak gee dal di ñibbi ndax moom du ilimaani raatib te it dañuy sart ci boole googu mbooloo ak julli ragal julli ragal daañu ko jàngale ci téere fii te jàngale woon nañu ko ci yeneen téere mooy jullit ñi buñ dee xeex ak yéefar ya am na nu ñu nosee julli ga def mbooloo ma ñaari xaaj am nu ilimaan di jiitee ñaari xaaj ña loolu mooy jullit ragal ilimaan di koy jiite faaw rek na yéene jiite ga maanaam na bàyyi xelam ci jiite ga muy jiite julli googee bi ci mujj nag mooy ilimaan di jiite ba yàgg mu am ngànt am ko mu wóotal ne ko àggaleel julli gi nga xam ne kookee soppiku na ilimaan te nekkoon maamoom kon na yéene jiite ga ndax yéene ga jiite ga mooy teqale lam njëkkoonu nekk muy maamoom ak li mu soppiku léegi muy ilimaan wa musaawaatun akuk yemoonte fii daati salaati ci jëmmi julli ga wa sifatiha ak meloom wa wa zamaniha ak jamonoom ja bokk na ci sart yi maamoom moo ko koy jiite nañ bokk jëmmi genn julli gu ñuy julli ni ki ñu bokk di julli tisbaar mbaa takkusaan mbaa timis mbaa gee mbaa suba nga xam ne ñoo ñoo yemoo jëmmi julli ga ñuy julli nañ yem itam ci buñ dee fay bor di fay bor buñ dee julli ci waxtu wa di julli ci waxtu wa loolu jubli ci wasi fatiha bu fekkee ne kee day julli ci waxtu wa kee moom day fay bor mel ni kii moom tisbaari tey lay julli kee moom tisbaari démb la bëgg a fay duñ mën a ànd nga jiite moom faaw mu baaxle waaye ka ñu jiite moom du baaxle dafa sartu sax ñu bokk jamono ndax mën nañoo bokk di fay bor te julli kee bis ba mu dëkk ak julli ka ca des bis ba mu dëkk mën nañoo bañ a bokk mel ne kii moom tisbaari bisub gaawu lay fay kenn nag moom tisbaari bisub dibéer lay fay du tax ñu mën a ànd ndax ñàkk bokk jamono ja illaa nafla ndare naafila xalfa fardin ci gannaaw farata mu ne nag nangu nañ day kee di julli farata yow ngay julli naafila moom mooy julli farata mu jiite la mel ne ngay julli yor yor fekk ko naajee julli suba mu jiite la nga julli ñaari rakka muy yor yor wala ñu toll ci waxtu tisbaar ngay julli tisbaar doon kuy tukki di wàññi ay julleem yow ngay naafile ñaari rakka moom nag muy julli tisbaar di ko wàññi nga far ànd ak moom am na itam lu mat a jàpp foofu mooy su fekkee ne kee da ko wóor ne julli sàngam raw na ko kee nag moom day nattable ba xam julli googu rawoon na ko am rawu ko ñu ne ko jàppal li gën a wóor mooy raw na la daal di koy fay kon ka nga xamee ni wóor na ko ne ci misaal tisbaar rawoon na ko su demee kookee nga xam ne ma ngay julli tisbaar di ko fay waaye daa jàpp la gën a wóor rek demoom xamul ba xam rawan na koom rawu ko kay sikki sàkk rawan na koom rawu ko bu jiitee rek ka nga xam ne wóoroon na ko ne moom tisbaaram rawan na ko nattaliwu ko du baaxle ndax kii sikki sàkk julli woon na tisbaaram julliwu ko woon day def li gën a wóor rek waaye daanaka li mu def naafila lay xaw a nuru ki wóore nag di lootoon tisbaar moom julli dëgg-dëgg moo ko war kookaa war a jiite waaye su bàyyee kële jiite ko rek du baaxle moo tax mu ne daañu caxe loolu di wax naa ñaari góor ñoo xam ne ku ci ne amee na sarti jiite ñu bokk di julli genn julli te bu kenn ko jiitee moroom ma mu baax te ka ca des moom bu jiitee du baax fala yasixu du wér subuhun suba baax da samsin ci gannaaw fenk ku jant bi mën ci koo xam ne adraka jotoon na rakxatan abraka qablaha ci njëkk fenk ku jant dañ ne woon kay jiite ak ka muy jiite dañuy bokk di fay mbaa ñu bokk di julli ci waxtu loolu sew-sew la kooka da doon julli suba fekk jant ngi bëgg a fenk waaye nag am na ràkk jant bi door a fenk ba mu nekkee ci ràkk bu ñaareel ba nag am ku dikk ànd ak moom mu jiite ko ràkk bu ñaareelam boobee kooka door a jóg nag mottali beneen ràkk muy bu jëkk bañ ko rawee kooku du baaxle ki ko jiite moom ndegam julli woon na benn rakk laata catu jant bi di génn rek dañuy jàpp ne julleem gépp ak joox la maanaam dañ ko julli ca biir waxtu wa te ki ñëw roy ci moom nag gannaaw bu catu jant bi génnee la roy ci moom kon julleem gépp ak fay bor la te dañ ne woon dañu war a bokk buñ dee fay bokk di fay buñ dee julli ci waxtu di julli ci waxtu wa mutaabaatun akuk topp fii ihraamin ci armal wa salaamin ak sëlmal fal musaawaatu yemoon tega mubtilatun aji yàq julli ga la balaa jullik maa mooma baax tey sàmmonteeg yaar yi moom mu bañ koo defandoo ka koy jiite rawante na jiitu ko jëkk ko koo def su ko defandoog moom rawante na mu jiitu ko ci rek ak julleem daal nay yàqu te mooy allahu akbar bi ñuy tàmbalee muy armal ak asalaamaaleykum muy sëlmal yooyu yaar moom faaw mu bàyyi ba ilimaan def ko ba àggal mu door koo def te lu ñu wax ne su ko ilimaan njëkkee tàmbalee wax asalaamaaleykum laata ilimaan di àggale nag moom it mu tàmbali waaye kàddug ilimaan daanu na moom kàddoom door a daanu nga xam ne kon ilimaan a ko njëkk a tàmbalee wax asalaamaaleykum tey moo ko njëkk àggale asalaamaaleykum ja boobu moom dañ caa dogu ne maamoom ma julleem baax na ba ñu werante kay dana baaxleem du baaxle mooy ilimaan moo njëkk a tàmbalee wax asalaamaaleykum naka mu tàmbali nag laata muy daaneel maamoom ma moom it daal tàmbalee wax xaat ba noppi nag ñu bokk daandee la ndoo ñu bokk àggale ndoo boobu daal la ñuy nattable ndax maamoom ma julleem dina wér wala du wér dañuy wax ne wax ji gën a wóor mooy julleem dana baax ba tey ba ñëpp maasee ne julleem yàqu na daal mooy ba ilimaan tàmbalee wax asalaamaaleykum laata muy daaneel moom maamu mi dafa daal tàmbalee wax moom asalaamaaleykum bañ ba noppi itam njëkk a daaneel ilimaan ndegam ilimaan a ko njëkk a tàmbali waaye nag moom moo ko njëkk a àggale kon julleem du baax moom lay wax ci saraa bi naa wa saxat in ibtada ba'dahu wa xatama ba'dahu qatxan aw maahu xala saxiix laa in xatama qabla wa xaruma araam na sabquhu jiitoom nga fii xayrihima ci kulul ñoom ñaar wa kuriha te sibeef musaawaatuhu yemoonteeg moom boo weesoo nag allahu akbar armal ak asalaamaaleykum sëlmal yeneen xeeti farata yi ci des nga gaawantu ba njëkk koo def sa ilimaan lu araam la waaye nag def nga lu araam du tax sa julli yàqu mu des nag lañu sipp mooy ngay defandoo ak moom niki di rukkoondoo ak moom wala di sujootandoo ak moom dañoo taamu rek leen lu ne nga bàyyi mu jiitu la ca nga gaaw nag fekk ko ca loolu moo tax mu ne wakkuriha te si béef musaawaatuhoo yamanteeg moom wa umira digaleef na ko bi awdi ca delloom nga lëxoo jëm ca elimaan ba in xalima ndem xam na idraakahoo jotam nga bu ñu ne maa moom araam na mu jiitu ilimaan ca farata joojee niki jëkk ko rukkoo mbaa jëkk ko sujjóot mbaa jëkk ko siggee ji rukkoo mbaa sujjóot bu ko defee nag luy àtte ba lay àtte ba mooy saa yu jiitoo ilimaan rek ca ponk ba te yaakaar ne bu delloo xam ko bàyyi woon dana ko fa fekk day delluwaat fekk ilimaan àndaat ak moom def mel ne bu njëkkee rukkoo ilimaan mbaa bu njëkkoo sujjóot te jàpp ne ilimaan moom ku yéex la mën naa siggiwaat àndaat ak moom sëgg rukkoo mbaa sëgg sujjóot day delluwaat fekk ilimaan ja bàyyi ko mu jiitu ko ca rukkoo ba ak sujjóot ba moom nag mu door a def bu dee topp la gën teewul nag bu fekkee ne ba mu jiitoo ilimaan ca rukkoo ba mbaa ca sujjóot ba nee na fa teg xaar ko fa ba ilimaan ñëw fekk ko fa te ba ko fa ilimaan fekkee it nee na teg ba defandoog moom farata joojee kon dana baaxle waaye bu njëkkee sëgg rukkoo mbaa mu njëkk a sëgg sujjóot ilimaan ba ilimaan ñëwee laata mi ànd ak moom xaar ba ne teg moom mu daldi siggi julleem lu baax boroom muxtasar nag moom dafa tàqale woon àtteb njëkk ko sëgg ak njëkk ko siggi boroom muxtasar moom daa waxoon ne bu fekkee da koo njëkk siggi niki mu siggee ci rukkoo mbaa ci sujjóot te ilimaanam siggeegut mu ne kon bu ko wóoree ne bu sëggaatee fekk ko fay du ko tax sëggaat day bàyyi noonu rek ilimaan fekk si ko léegi xas na siggi rek na bàyyi ilimaan siggi fekk si ko waaye bu mu sëggaat di ko fekki lay sukkandikoo nag mooy li borom téere bi wax moo xam sa ilimaan da nga koo njëkk a sëgg mbaa da nga koo njëkk a sikki lu ci mën doon boo jortee mbaa mu wóor la ne la nga ko bàyyi boo dell la nga ko ci fekk àndaat ak moom nag def loolee nga ko jiitu woon muy sëgg muy sikki delluwaatal ca fa ilimaan toll nga ànd ak moom nag wii wannu di ba soppeef na taqdiimu sultaanin jiital buuru julit maanaam attekatu julit sopp nañ jiital aji luy kër ga xalal maaliki ci aji moom ji kër ga wa in xabdan ak doonte ab jaam la kamra atin